nee nañu moom mooy bàyyi complot bi moom moo sos du mhm. début à la fin moom la da ci ànd ak ay nit mu nekk nag mbir moo xam ne nii eh, Ousmane Sonko daan na ko wax ak ay ñoñam mhm. tax eh, tey ji Mamour eh, kii di xam Diallo daal di woo Mamour Diallo mhm. lan fan la sukkandiku ba woo Mamour Diallo te bu fekkee Mamour Diallo rek la woo ñi ci des ñu ci tudd ku ku wuyoo ci turu Tata Viviane ñu ci tudd ki nga xam ne moom mooy maître Gabisso ñu ngi ciy tudd kii di euh, maître George Diagne mhm. Sidi Ahmed Mbaye woo nañ ko moom aussi lan moo tax ñu woo Mamour Diallo kese ñu ci des ñu leen waaw daanaka Mamour Diallo convoqué convoqué nañ ko te maa ngi maa ngi maa ngi dégg euh, Mola Morgan di ko wax mais foofu wax na dëgg hmm. maanaam convoqué nañ ko woo nañ ko déglu nañ ko mais soriwuñ ci yëf yi maanaam dégluwuñ ko dans le fond maanaam soriwuñ ci mbir yi Hmm. ay tontu yu gàtt la tontu moom xamul liiwul dara ci xamul dara ci mbir mi nu mu demee hmm. xam dafa maanaam pour pour daw question doyen des juges yi première tontu bi nga ko tontu mooy xaw ma dara ci mbir mi xam nga ku la ne xaw ma dara ci mbir mi moom mënoo sori ci yëf yi moo tax doyen des juges soriw ci hmm. léegi moom mu ne après mbir mi la fay viol bi la intervenir pour sauver jigéen bi nga xam ne dafa nekkoon en détresse mhm. même bu dee par la suite gis ne am na ay preuves yoo xam ne day weddi li Mamour Diallo wax mhm. parce que am na justement <laughs> euh, téléphonique yoo xamante ni day wane communication diggante ak ñeneen ñi ñuy jiñ ni dañoo togg ci complot bi donc mhm. foofu loolu daaneel na ko beneen mbir bi ko daaneel tamit également mooy yenn enregistrement yi nga xamante euh, na activement ci mooy moom mooy mbir mi nga xamante ne euh, ñoom lañ koy jiiñ maintenant Euh, moom déglu woon nañ ko gendarmerie parce que ñeen ñu déglu woon gendarmerie yëpp dañ leen war a dégluwaat ci ci mbir mi fii moo tax doyen de juge woowoon na ko pour déglu ko euh, ak également ñeneen ñi nga xamante ne également gis nañ ne euh, bokk nañ ci dossier bi te gis nga déglu bi ñu déglu Sidi Ahmed Mbaye ak Mamour Diallo hmm. lu am solo la coro xam nga lu tax ah. fi ñu toll nii mhm. même bu doyen de juge joxe woon non lieu hmm. wala ñu atte woon Ousmane Sonko yóbbu ko atte ko ba mbir mi féete boor. Hmm. mënoon nañ demaat ba jëmmi jamono tijjiwaat dossier bi pour topp comploteur yi. Hmm. la ñu wax révision de procès. de procès d'accord fii ak dix ans vingt ans trente ans. Hmm. mën nañu tijjiwaat dossier bi pour topp comploteur yi. moo tax pour ñu rëcc du yomb de. yaa ngi ko doon wax la fois passée que ñii di ay avocat wu Ousmane Sonko. daanaka dañu sax xaw a yolomal ci dossier bi ni ñu koy toppee nañu gaawantu mhm. ba ma déggee ñu ne ñu ngi ab dabb ay plainte kii di Adji Sarr ak ña ay ñoñam mhm. maa ngi doon wax ne est-ce que du Pam Ndiaye la ñu dégg parce que nee woon nga bu ñu dugalee euh, plainte dina tax lii di dossier bi du mën a yem fii ñu bëgg mu yem fi waaye ñoom heure bu ñu ko bëggee ibbiwaat pour topp comme docteur moo tax yi sax yi ñu naan dañ ko yéex def waaw am na ñuy wax ni xaw nañ ko xaw nañ ko yéex def mm-hmm, mais mm-hmm. bon peut-être ko ñoom comme puisque ñoom peut-être xam naa ci seen stratégie la bokk mm-hmm. ñoom xam nañ euh, peut-être li tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu def loolu nga xam ni moom mooy mbir mi léegi maa ngi la doon wax ni euh, fii à tout moment buñ demaatee ba gis lu bees lu ñuy wax fait nouveau waaw bu dossier bi demee ba ndar képp bu ñu demaatee ba découvrir lu bees mën nañu tijjiwaat dossier bi pour topp ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñooy complot parce que bu ñu waxantee dëgg rek. Hmm. mbooleem ñi ñuy jiñ ci tudd ne dañoo bokk ci complot bi dañoo war a dem kaso. bu dee citoyen simple la dafa war a dem kaso. ba ci hmm. avocat bi ñu ciy tudd dafa war a dem kaso. Mm-hmm. ba ñu enquête leeral mbir mi. Mm-hmm. donc saa ñi war ñi ñi war a dem. maanaam ñoom dañ leen a war a jàpp ba pare inculpé ba pare soog a topp dossier. justement effectivement dem defi enquête yi. waaw parce que yoon noonu lay doxee a nag dem dem continuer enquête bi ak yooyu noonu. d'accord mais mais mais mais mais parce que lii bu jàllee. non ça veut dire que léegi moom jigéen bu jógatee di pot plainte kenn dootu la laajate euh, viol certificat médical parce que boobu amatul sens yóbbu dossier bi àtte Ousmane Sonko mooy signifier que euh, certificat médical amatul sens ci viol loolu lay tekki mhm. te vraiment loolu bu ñu ko fi indee vraiment day day day nekk loo xamante ne lu lu lu doy waar lay doon donc ñi ngi seet xool ndax procès dina am waaw wala déet wala li nga xam ne maa ngi dégg ñenn ñi foofu tamit xam nga day jaral ñu expliquer naan doyen des juges fa ñu mënee woon classé censure dossier sur beauté weesu nañu ko. Hmm. ci procureur la ñuy classé censure ah. procureur mooy c'est-à-dire justice ku nekk da nga am ses pouvoir procureur mooy classé censure doyen des juges du classé censure amul pouvoir boobu donc fa ñu mënoon classé censure dépassé nañu stade boobu. daf donc da ciy baax kenn ku nekk nga xam say procureur dafa mel ni mandat d'arrêt rek procureur mënul lancer mandat d'arrêt hmm. juge d'instruction moo ko mën a def ak juge du siège donc classement censure mënul nekk fi ñu toll nii fañ ko war a defee dépassé nañ ko hmm. doyen des li mën a def mooy non lieu wala renvoyer procès bi ñu dem ñu àtte ko hmm. am na leneen loo xam ne tam doyen des juges mën na koo def mën na génn ci Sweet Beauté doyen des juges mën na dem ba ca mu soppi tuuma yi soppi ko beneen tuuma yóbbu ne dañ mën na ko loolu mën na nekk gis nañ mhm. gis nañ ko fi ci ay dossiers yi ñun ñoo xam ne dañ leen toppee woon pour viol mais bi juge defee enquête am day gis ni viol amul mu soppi tuuma yi def ko soit agression sexuelle wala attentat à la pudeur wala atteinte publique aux mœurs yóbbu ko mhm. doyen des juges tam bu ko deful déglu bu baax li ma la doyen des juges bu ko deful ci Sweet Beauté yóbbu ne day yóbbu dossier bi pour ñu atte ko pour viol mhm. juge ba bu demee ba ca fin gis ne viol amul ay pouvoir am bokk na ci mën naa soppi tuuma yi ne viol amul mu indi beneen tuuma teg fa. tout comme mën naa seetal aussi ki ñu koy topp jox ko li nga xamante ni moom mooy. acquittement mm. Mm. donc yooyu yëpp mën na nekk. juge ba war a àtte tamit. Mm. képp koo xam ni déglu woon nañ li ci dossier bi nga def seede bu dul dëgg juge bi doon àtte mën na la topp pour faux témoignage. donc li ma bëgg a wax foofu mooy ñi rëcc ci doyen des juges. waaw bés bu ñu demee procès mën nañ bañ a rëcc. d' accord ñi rëcc ci doyen des juges. ci bu lépp mën nañ bañ a te yow xam nga ne dossier bi fen yi ci ne bëri nag wallaay donc ñooñu foofu am na ay risques yu leen di xaare mhm. moo sax si procès c'est très risqué mhm. ba pare tamit mais dama seetlu dafa mel ni gars yi dafa mel ni wóoluwuñ seen bopp ci procès bi ñi doon ñi doon jàppale Adji Sarr waaw parce que maa ngi dégg ñenn ñu naan ah Adji Sarr bu ñu gàcceel de mbaa sa tuuma yi du du du du du du du du wadd comme comme château de kii ak yooyu noonu mhm. donc man ma ne ah gars yi ñoom xanaa du ñoo fi taxawoon di fëgg ci table bi naan wéy viol viol viol procès procès ñu annoncé ni procès mi ngi xëy ñenn ñu commencé commencé tiit moo tax ma ne gars ñi ah dafa mel ni seen seen yëf yi mooy loolu de. mooy loolu te ñi ko doon tudd bokk na ci eh, Françoise Hélène Guèye gis nañu mhm. ko randatoom daanaka am na ku mu jiiñ que su nekkoon ci ay loxoom nga ak sàngam de même que Gabriel Kane gis nañu texte barki démbam bii nga xam ne nii ça tout dire. Mhm, euh, maître El Hadj bi ñu dégg ba ba tey dossier bi tool fii kenn gisatu ko nee nañ sax talatul dossier bi. Mhm. daanaka daal bari na ci loo xam ne nii am na ay woroo Mamour Diallo man ca mu wax ne moom yëgul tinu ci ab dossier boo xam ne euh, euh, euh, am na ay réquisition yoo xam ne moom moo lay wan ne téléphonique yoo moo yoo xam ne moom moo wan ne daanaka impliqué wu na ci mbir mi mais dama bëgg a ñëw aussi taxaw ci diggante dossier bi certificat médical bi ak wàllum complot bi mhm. parce que certificat médical bi dafa am koo xam ne aussi moom la ñuy joxoñ ñii ne kii mooy mooy mooy daanaka mooy certificat médical bi mhm. muy le docteur Alfousseyni Gaye gis nañu li ci ginnaawam yëpp gis nañu li ko ba tey nee nañu dafa gàddaayu dem euh, Kolda. Mhm. kër yaayam toog fa même nee nañu malaat yi nekk fii yi mu doon suivre sax dañoo mujjee am problème ñoom ñëpp ñu ngi taxaw di ko xaar. Mhm. parce que moom biirum dafa nekk en danger. Mhm. te moom ci ay seede wax nañu ne Mamour Diallo woo na ko. ci ay appel téléphonique yoo xam ne nii moom mi ngeen moom ba ay audio yoo xam ne ñu ngi wax ne sax mën naa génn à tout moment. mais est que loolu ubbiwul rek. teesu moom doyen des juges ak procureur ku mu ci mënti doon ñu xam ne kat lii mooy certificat médical bi ki ko doon def nee na lii leer na askan wi complot bi ñee ci kii te kii am na ay jéego yoo xam ne yu mu def jëmee ci complot bi est xam nga xam rek c'est révélateur wallaahi docteur Alfousseyni Gaye ba mu mm. ko yi tuuma yi ngay la looy soxlaa loolu rek loolu rek doy na firnde buy wane ni kat li ñuy tuuma bi amul. Mhm. bu dee li ngay wax dëgg la. Mhm. lan ngay soxlaa pour ñu defal la defaral la certificat médical. Mhm. donc loolu am na ci deuxièmement. docteur Alfousseyni Gaye fi ñu toll nii justice fi ñu moo war a joxe ndigal ak procureur ñoo war a joxe ndigal pour que ñu protéger docteur Alfousseyni Gaye parce que actuellement mi ngi ci procédure judiciaire donc justice dafa ko war a protéger parce que témoin la. surtout képp koo xam ne nekk n témoin. loolu la dal yaay justice est responsable xam nañ li may wax. donc justice ab dafa am obligation waa justice les autres judiciaires là mm-hmm. am nañu obligation jox ay ndigal pour que ñu protéger sàmm kaaraange docteur Alfousseyni Gaye mm. muy benn ñaareel bi mm-hmm. taxawaay bi nga xamante ni moom am na ko taxawaay bi nga xamante ni moom am na ko mm-hmm. day wane ni vraiment firnde yi tuuma yi dëgërul parce que bu dëgëroon duñ fi nekk di ko neexal pour mu soppi yëf yi mu bañ ko def ñuy exercer ay représailles ci kawam ñetteelu mbir bi nga xamante ne am na ci toujours concernant kaw docteur Alfousseyni Gaye euh, dara dal ko amuñ intérêt dara dal ko parce que moom moo defar certificat médical bi. Mhm. mën nañ jékki-jékki réeral certificat bu ñu ko fi faagaagalee ñu jékki-jékki réeral certificat médical wala non c'est un vrai certificat médical mu am ci coow kan moo mën a ñëw taxaw firnde seere dëggal ni li médical li mu wax ni dëgg la looloo am. moo tax dañu am intérêt ko pour mhm. dëgg gi feeñ maintenant bu fekkee ne bëggu dëgg gi feeñ nag mën nañu mën nañu tànn ay mbir da mhm. nga wallaay benn ci ñiy soutenir Adji Sarr mhm. ñaareel bi ci kenn ci avocat Adji Sarr am na ci koo xam ne tàmbali ba dafa dóoroon table bi ne viol am na moo ko violé wallaay ba muy constitué wu nit ñi ñuy fàtte ba muy constitué wu ne day défendre Adji Sarr émission balance la ko def Adji Sarr Adji Sarr boobu 2021 mu tijji première saison bi mu nekkoon premier invité balance foofu la constitué wu ci Adji ne day défendre Adji Sarr d' foofu la jëlee ay ay dogalam. voilà ci déclaration yi mu doon def ci biti yëpp dafa fëgg ci table bi ne non viol moo ko violé moo ko def lii. Mhm. mais am na dernière interview bu ma lire ci benn site boo xamante ni dafa ni wóoruma ndax viol am na. c'est vrai que ñëpp ñu commencé daw di dellu ginnaaw. parce que xam nañu fi ñu tey dafa dëgëru. Mm-hmm. beneen bi ci topp mooy xam nga ñu ngi doon wax vidéo vidéo vidéo mais xam nga ba léegi joxeeguñ ko. ñu ne lan procès la xaar. Mm-hmm. parce que vidéo bi jotaguñ ci. moo tax yow la nga fi waxoon information ba nga foogoon looloo dëgg te kenn weddeegu ko maa nekk di ko defar moo tax jotaguñ ci israélien buñ ko jotoon mhm. xam nga ni jox nañ ko doyen des juges moo tax moo tax génn boobu noonu yow sauvé nga Ousmane Sonko te yëgoo ko mhm. eh, avocat Ousmane Sonko dañ la ci waroon gërëm parce que boo alerté woon mhm. vidéo bi tey lañ koy def wallaay cest à dëgg la du dëgg saa à dire yàq der bi ci ne rek bu xam ban conséquence lay am ci sa njaboot ci say soxna ci say doom ak yeneen ak yeneen ak yeneen moo tax moo tax moo tax ñun journal lii rek suñu xamante ni yëf jaadu na ab complot mais da taxaw di ko kii parce boo ci noppee loolu tamit ma koy leeral mm-hmm. ci ñeneen ñi nga xam ne xamoon nañ ne lii complot ba pare ñu noppi ci mm. moo tax MC Niass waaw buñ ko félicité wul buñ ko buñ ko attaqué buñ ko critiqué xam nga lu tax mm-hmm. yoon dafa ne nga xam ne lii tuuma la yoon da koy tere boo ko dénoncé wul yow sa bopp def nga délit def nga crime la non dénonciation d'un délit est un délit la non dénonciation d'un crime est un crime juriste yee koy wax mhm. nga xam ne lii yoon da koy tere bu kalaame woo ko yow def nga lu yoon tere mhm. ñuy topp diw nga xam ne kat kii ki ñuy topp ni innocent la nga am preuve yu ko mën a setal nga ne ci pat bés bu yoon demee ba xam loolu mën na la ci topp moo tax képp koo xamante am nga preuve wala xam nga ni lii du dëgg mm-hmm. da war a am obligation génn dénoncer ko ni lii du dëgg viol bi amul ab complot la bu ñu togg pour mm-hmm. écarter Ousmane Sonko mu bañ a bokk ci ay élection parce que am na doole boo xam ne bu bokkee day daaneel nguur gi fi ne mm-hmm. bu ñu demee ba jëmmi jamono wala beneen régime nekk fi wala jëmmi jamono ñu gisoon ne kat diw ak diw ak diw ak diw xamoon nañ lépp nun demee na ci pat ñooñu mën nañ leen tëj ci kaso bi bien sûr loolu laa leen di bañal nag xam xam nga ci dara génnal nga wax képp koo xam ne xam ne lii ab complot mhm. gënal nga wax pour protéger a dénoncé boo ci noppee bés bu ñu demee ba changement de régime am ci mhm. ñu tijjiwaat dossier bi mhm. xam ni kat diw mi xamoon na ni lii du dëgg wala lii ab complot yoon mën na la cee topp li may wax ni yoon a ko wax de ku gëmal li may wax nag demal ñi jàng yoon xam yoon nga laaj leen demal nga laaj ñi jàng yoon nga xam yoon nga laaj leen man de doy nga ma ci sëkk voilà donc ay mbir yu bëri yoo moom Gabriel Kane ci ñi jàppale ndax il faut ñu citer turam. Mhm. mu wax ne le procès est acté. Mhm. wax ko moom Adji Sarr ci ab publication bi ci Facebook mhm. loolu qu'est-ce que ci dossier boo xam ne nii comme ni nga ko waxee léegi ñu ngi ci loxo yoon. am na fuñ ci toll. troisième saison la ju jëm ñuy wax naan dina am procès du am procès askanu Sénégal li ci ëpp yëpp ne procès waruñu caa dem. parce que ñoom atte nañu déjà ci seen xol seen xel que lii dara amu fa lu ñu war a yóbbu procès. te moom na le procès xam nga. jamono yi la weesu. dafa am mhm. wax bu ma fi waxoon ma ne leen nguur gi seen bëgg-bëgg mooy yóbbu dossier bi ñu àtte ko. Mhm. toogoon naa fii ne leen. Mm. bu ngeen yaakaar yi day yombe noonu ñu xëy rek seetal Ousmane Sonko teg non lieu ku yaakaar mm-hmm. loolu nax nga sa bopp. il faut ngeen xeex sur le plan politique xeex sur le plan judiciaire. mooy mooy tax ñu seetal ko. Mm-hmm. parce que du yombee noonu pouvoir ñoom seen bëgg ba xam nañ ko comment se fait-il que Coro ñu ngi ci biir instruction. Mm. la ñuy xaar pour génnee benn wóorul nag procès dina am parce que enquête bi jeexagul woon. ñaare bi naka la ñu xamee ni procès dina am. comme si dañ leen gëmloo ni procès dina am. moo jaaxal <laughs> mm-hmm. loolu rek dafa tey xel. loolu rek dafa tey xel yow ñu ngi ci enquête xamaguñ ndax dina am waa wala déet nga dégg nga maam mooy loolu noonu. Mm-hmm. ah mi ngi mel ni mi ngi mel ni euh, nu mu mm-hmm. mi ngi mel ni jigéen bu ñuy soog a maye rek. nga dem ci kenn ne ko sama doom bu jugee ku góor ku tudd Babacar sama doom bu jugee du juddoo yow laa koy tuddee. yow xamagoo ndax amagoo wusinagoo xamagoo éco dafagoo écran xamagoo ndax góor ngay amul jigéen ngay diggaate ni sama doom bi yow ko góor ki laa ko tudde loolu ñi ngi ci biir enquête instruction jeexagul mm-hmm. nga ne non procès ngay xaar pour joxe say preuve parce que leer na ne procès dina am wala dañ la ko gëmloo c'est vrai donc du yëpp dafa nekk ay mbir yu tey xel yoo xamante ni wax dëgg mm-hmm. yàlla mm-hmm. vraiment dañ leen ci bàyyi xel dañ leen la lala basang mais ñoom à chaque fois basang bi dañ ciy daanu rek yaakaar naa di këppi këppi ndax loolu euh, Gabriel Kane def noonu rek ça veut tout dire mm-hmm, te bari na ci loo xam ne ni tey na xelu askan wi mais sànq da nga wax que euh, doyen des juges de même que procureur mën nañoo soppi tuuma yi tuuma yi waaw mais ci dossier bi Pape boo ko xoolee ñu ciy wax mbirum viol ñu jóge ci yan tuuma nga yaakaar ne war nañ ko mën a toppee euh, Ousmane Sonko bu ñu xoolee bu ñu synthèse bi nga def sànq dé début euh, sud bati ba fii ñu tool nii lan lañ ko mën a. gis nga gis nga gis nga yoon bu bëggee dal sa kaw. Hmm. bu la bëggee dóor jaasi ji dóor ci bu dee loolu rek rek rek moo leen tax a jóg dóor la jaasi ji mënoo fexe ba échappé xool nañ defoon imam Ndao yal na yàlla yokk leeram terrorisme amul waaw duñ ko setal bàyyi ko mu dem ñu ne noonu non mais gannaay bi nga yoroon amul woon arme loo xam ne pistolet fawkaay pistolet fawkaay ñu ne dañ ko ciy tëj sursis loolu mooy problème même bu demee ba ñëpp leer ne viol amul mhm. mën nañ tegee nee viol bi wut leneen luñ luñ ko ndaw luñ ko luñ ko collé motif ba kii ko ci ba kii ko ci